donc li may def mooy damay jaar central équipement rek li ñu ci bagage ak moo ñu ngi dem incha allah bu soobee yàlla central alhamdulilah. central équipement dafa centralise lépp loo soxla ci équipement cuisine ci seen ndaje diine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rek sa aajo daal di faju central équipement di jox lépp luy taaral kër di bakkanal dund gi. Central Équipement. Venez vous équiper à moindre coût. Nos prix défient toute concurrence. La qualité est notre credo. alhamdulillahi rabbil alamin ne xanaa liñ ci bëgg a jiital rek de mooy baatu ndokk gannaaw buñ jégaloo di nuyu bokk yëpp njabootu sëñ Tuubaa gi fi nekk yëpp ak bokki taalibe yëpp bokki jullit yëpp ñi fi teew ak ñi fi teewut gannaaw bu ñu santee suñu boroom moom mi nu booleeg sëriñ bi sant sëriñ bi nag moom sëriñ bi nag moom amuñu cantam waaye faw ñu wax ci sunu làmmiñ rekk noo koy sant bu baax bu ko manee di ji suñu yéene santee ko sunu lépp dara bañ a desee dara loolu buñ ko mënoon loolu la def jàmbaar yi di bokk yii tey liggéey liggéey bii jàmbaar lañu de sori nañ lool itam waaye nag sëriñ bi moom neexut a dégg sax liggéey bii ñu léggéey ko ngir ne kërug xasaayit yi la tabaarakallah def nañ seen kem kattan te lu xaw a sori lu xawe njort la lu xaw a kawe njort la waaye li tax liggéey bii jóg muy xasaayid yi waxuma xasaayid yi waaye bu fekkoon ne mënoon naa nekk ñu mën a dajale xalima yi bi doon liggéeyee dajale daaya yooyee ko liggéeyal kër gi def ci yooye dong du tax mu doy tax mu doy tax mu doy loolu sëñ bee moom xam na boppam xasaayit yi mooy jëmmam diggam boroomam diggam ak yonent bi ak seen diggante ak moom loolu mooy xasaayid yi alhamdulilah lu doy la ndax lu am la te mel ni raw naw xel te mënuñu koo ñàkk dund ndax mi ngi nii nekk ci sunu kanam nu di ci xëy di ci gont waaye fa xasaayid yi àgg xel àgg fa mooy loolu yi nag mooy li nekk waaye teewul nag lu nuy ñàkk ñàkk solo ak lu nu xeebu xeebu ak lu nu réer réer faw ñuy jéem a xam loolu moo indi lii liggéey bu réy bii xasaay di rekk tax koo jóg kon loolu wax dëgg yàlla yéene ju sell parce bu réy la yitte ju mag la ñu jëmale ko ci liggéeyal ko xasaayid yi ñu jëmee ko ci liggéeyal ko xasaayid yi waaye ni ma ko waxee rek ni la demee ku dajale woon xalima ak daaya rek dana jar kër gu toll nii def ko ca moom dong tëj ko ak caabi caabi or kon nag xasaay yi ni muy demee bon ndegam xalima yi rek a demee noonu jërëjëf sëñ Yuusu jàmbaar ngeen lool jàmbaar ngeen lool fa tabarakallah def ngeen lu rëy waaye nag ki ngeen di yëngutul moo demee noonu raw na gannaaw rom na mu xel xanaa daal teggi ni taalibi dana ma tax a noppi ma yem foofu waaye daal sëñ bi raw na malaayika malaayika doonul ci moom dara gaa yi ja topp mu yonent yi. gaa yi bi jox na leen seen àq ba mu sëkk. ñoom xam nañ fa mu nekk. xam nañ ca lañ ca war a xam. jox nañ ko àqam ñoom itam. nan sant rek te yam foofu. ñi ngi sant bu baax nag. ñi ngi ko bokkal ñëpp. ñu ko ci njabootu Serigne Touba gi ak bokk taalib yi fi teew yëpp. ak bokki taalib yi fi teewul yëpp. bokki jullit yi fi teew ak yi fi teewul yëpp. noo ngi leen di sant bu baax. ku fi teew baa nga dégg am na xam ne am na xew-xew bu toll ni bii fi am bokk ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa ñu xam ne noo ngi yeesal suñu jaayante fii yeesal suñu feddali suñu laxasaay fii fas naa sax dàkk ci jaamu yàlla rek ak liggéeyal Sëriñ Tuubaa yaar yii rek ci lañ nekk foofu rekk lañ nekk sax rekk ci jaamu yàlla sax rekk ci liggéey sëriñ Tuuba man ci sama ndongo man ci sama xalaati taalibe damay wax ne jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ Touba liggéeyal sëriñ Touba jaamoo ko yàlla man noonu laa ko gisee te muy dëgg ci man na nekk ci loolu rek sax ci dàkk bu sun yoon nekk ci leneen buñ jaaxle ci dara buñ tiit dara nan na siw jublu sëriñ bi ne ci gannaawam sax ca dàkk sunu yëngu sunu dal lépp na nekk ci gannaawam rek jërë ngeen jëf sant nañ leen bu baax a baax nan bokk nag sant yàlla nun ñëpp nag moom mi nu booleeg sëriñ bi jërë jëf ginnaaw bu ñu teewloo ñaan gi kenn bañ a raj rajoo ñoom ngir yàlla ak